وأكرم به ربا رديت عن المولى تعالى الذي ربا فادي وأغناني وأكرم به ربا دواما بالذي اختاروا ربا به خلقني اليوم عبدا بذكري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 allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa maulana muhammad almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin ama baadu fa hada alyowmu yowmu alciid likulli muminin muslimin muxsinin saciid faskuru llaha tabaraka wa taala fi ala kawnihi sururan linnabi wa liman yaxtafihi sala wa sallama alayhi llah fi alihi wa sahbihi wa kulli man tala asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen baalu àq tey sàkku ñëppit baal ñu àq di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa mu nangul nu sunu jaamu yëpp yu jiitu ak yi bëgg a ñëw jéggal ñu suñuy bàkkaar ci lu mu xam ak ci lu mu xamul ci lu ñu tey ak ci lu ñu teyul ci lu ñu yëg ak ci lu ñu yëgul mbokki jullit yi xam nañ ni bis bu tey bii bis bu màgg la ci mott li ndigal loo xam ni dafa jóge woon ci sunu boroom jëm ci jaamam bu mag ba te mooy yonante bu mag ba nga xamee ni sunu boroom nangu woon na jox ko ndigal la ca ngir mu lewatal doomam ja mu nangu ndigal la ay waajuram nangu ndigal muy waajuram bu jigéen moom mi nga xam ne mooy doomam it mu nangu ko ba yàlla wooteel leen lii nga xam ni mooy sunu xéewal ñun te mooy tabaski wootee ko am xar liñ mën a jàngate foofu mbokk yi ci jamono ji day waar jamono joo xam ni dara du fi jóg ndax sunu borom subhaanahu wa taala day yabal ay yonante ñu ñuy digle lu baax ak di tere lu bon bu demee ba yàgg mu jële leen fi indi fi li ñuy wax mu jaddit ñoom it ñu ñëw di yeesal di digle lu baax di tere lu bon ànd ay xaritam di ay awliya ñuy digle lu baax di tere lu bon kon naka jëkk digle lu baax ak tere lu bon du fi jóg looloo tax doomu aadama ñu bind ko ci fàtte moo tax sëriñ bi lim tënk ci xutba bi génnul lu dul ñett yii te mooy yéene lu baax ak jëf lu baax ak wax lu baax loolu rek la tënk loolu rek daanaka mooy xutba bi mooy jullit bu ne war na fu mu nekk di yéene lu baax fas yéene koo jëfe fas yéene koo waxe kon boo ko defee ba noppi am nga li ñuy wax bam jullit ñu nekk nag ci jamono joo xam ni ku ne daan na ko def waaye dafa raw ci jamono ji ñu nekk maanaam wax fàttali ndax doomu aadama moo bindoo lool dañ ko bind ci muy fàtte kon ñu di leen fàttali di leen delloosi naka gaa yi baax doon defee mënul ñàkk ndax doomu aadama moo mel noonu li ko mën a fab bi li ko mën a tax mu mu sànku wala li ko tax mu mën a jaar ci weneen yoon wu bokkut ak ko suñ borom bindal dafa yomb lool rawatina nag ci dëkk bii di Touba nga xam ni ki fi suñ borom teg te mooy sëriñ taxa yal na ko suñ borom yàggal lool te may ko ak wér ak yéene yi ku ne mën nga gis sa bopp ci mbir ci ci ci bopp ci jëmmam amul benn julit wala benn bi amul ko am xaalis amul ko ko ñàkk amul koo xam ne si ni gone nga wala mag wala ngay jigéen sa jëmm munoo ni gis naa sama bopp ci sëñ Muntaxa maanaam saa boo de yàlla dogalee ngeen jàkkaarloo di nga yëg ni jëmm ngi nii joo xam ne ku jox doomu aadama ak ku jox doomu aadama waruwaay rawatina na nga nekk taalibe sëñ Tuubaa ci wetam kon kooku mbokk yi ana war a dox suñu digg moom ci bu diglee ñu def bu ñu bàyyi xam ngeen ne ku mel noonu ku ko am ci jamono jii nga xam ne lim njëkk a def fii rek ngay ñëw ci tuubaa gis ñu ne la am na jëmm joo xam ni ku xam li université di di maanaam toll ci àdduna bi ak li mu li mu li mu symbolisé ci ci adduna bi nga gis ni maanaam sëñ Touba ñaanam nga yàlla jogal mu jaar ci moom ba matale ko te mooy université bi sànce bii kon kooku bëgg na nit ñi xam waaye bëgg na nit ñi xam ba noppi nangoo jaamu yàlla te dem liggéeyi kilifa gu mel noonu nag ko ko am. mbokk yi war nga ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax kon ñi ngi fàttali mbokk yépp ni am na lu muy tuddee wormay Touba ñu gis ni nag wormay Touba da nga koy tàmbalee ci taalibe bu ne nga xool yow sa jëmm ak sa bopp loo defal sañ Touba yomb na lool ci dëkk bi bu xéewal yëpp ubbi ko fu ne maanaam sa allah xéewal yëpp di di di sotteeku waaye ñu dem ba gis ci ni maanaam li li mat a bàyyi xel mooy xéewal yooyu mën naa indi waale ak mbew maanaam xéewal gu bari fu mu dugg ci nit su doomu aadama bi fexewul bëri ak bakkanam mbewte mën na caa topp kon nag ñi ngi dénk suñu bopp di leen dénk di laabire suñu bopp di leen laabire ku ne am na ci taxawaay boo ci war a taxawaay te mooy war may tuubaa taxawaay boobu nag weesuwul ku ne jërul sax moom mu di ko wax wax na ko fàttali ko ni ko ñu baax ñi jóge woon jël na ab ngeen gis ko yéen ñëpp mu toog ci jataay fàttali tuubaa nan la bëgg mu mel ni yemu ci it mu jël li ñuy wax njabootuk Seex ma Fall gi dénk leen ko waaye sax mën nañoo bañ a yegg ci ñoom dafa mel ni dénkaane li bi mu jógee rek ci képp ku xam ni danga nga ne woon damaa ñëw jaayante ak sëñ tubaa wax ko ni ko loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi kon wiññeeku nag ñu topp ca di la gër gërgëral di la yoru yat wala ñu di la fitnaal loola mën naa ñàkk ci koo xam ni la nga waxoon dëgg la ci yow loolu nag ki ko man mooy ki nga xam ne xam na ni am na masuliya bu rëy rëy loolu mooy lan ku ne ci ñun am nga njaboot tàmbulee ko ci sa kër kenn ku ne la nga gis ci sa kër te mu naqari la balaa ñëw ci penc ma jéem koo dindi ngir jàpp jàppale ci Serigne Touba man nga ko doo ko bàyyi nag ba ca mbedd ma sax ci sa kër ngay tàmbulee yow ci sa bopp yaay njëkk a defar yow borom kër gi sa jikko defar saw melokaan xool lon nga mel maanaam bu Serigne Touba ne woon cëpp ni tey ji dafa war a seet taalibe bu mu war a dëkkal wala bu mu war a seetlu doo am yaqiin wala doo am sikki sàkka ci nii kat man defar bopp ba wallaahi du ñëw ku ci gudul man kooku nag ku ne yaa ko mën a defal sa bopp kon mbokk yi nañ bàyyi xel xam li ñu boole ak sëriñ Touba ak coona bi nga xamee ni moom la jànkonte ak dëkk bi moom la jànkonte ak suñ jëmm yi ndax kat bu dul woon ak mooma neexaay bii ñu toog di lekk lu neex di sol lu rafet di yor oto yu baax dëkk fu ñu bëgg bu dul woon ak jëmmi kookee bala koo nit a wut loo jàmbaare jàmbaare bu ci àndul ci ñaanam gu suñ borom nangoogee mën naa jafe lool ndax ku ne ci ñun kenn ku ne xam na ni lala la suñu borom defal coono taxul nga am ko. koo gis mu am yenn jàmbaar dañuy wax ni jàmbaar amul ku ñu dimbali mu am kon nag sëriñ bi dimbali na nañ ko dimbali te dimbali loolu nag weesuwul lu jëmaat ci ñun ndax ñun rek la bëgg ñu mucc bëgg maanaam nag ne ci àddina ni ko dénk naa la sama bopp àddina ak àllaaxira te yow dema goo ca àllaaxira fa nga ko gën a yaakaare sonal ko ci àddina ku ne war naa xool kooka yow yaay kan ak loo représenté sa digg ak sëriñ tubaa mbokk yi nanu bàyyi xel bu baax a baax a baax loola nag la mag ma waxoon dafa am lu xew loo xam ni yu jur du dara lu dul àddina maanaam xew-xew waaye yooyu yëpp kenn ku ne da ngay xool sa bopp natt ci sa bopp ba xam yow lan nga ci war a taxawee su dee lu sëriñ bi wax nga ne ah nañ ko dig digal bu sëriñ bi joxee ndigal nga ne ndax moo wax gaayee ko wax loo loolu yëpp it war ngaa mën a xool te bu ñuy laaj maanaam yow da ngay commentaire sëñ bi waaye lépp lu ñuy laaj lu jëm ci sëñ bi amaana sax maa ngi yow ay yem ñooy mujj joxe wala bu ñuy joxe sax du am solo waaye balaa mën a am rek sëñ bi daa wax ñu di ko jàngat naan nii la ko waxee wala nii te bu wootee ngir jëf na ñoo xam ne maag ñoo may yem ci jëf ji nga xam ne bu jëf taxawee moom dëgg-dëgg du lu ñuy commentaire du ñëpp daw jëm ca waaye bu wax jotee wala sëriñ bi wax ñëpp di ko xalaat ni ko nii lañ ko waxee te Touba sunu dëkk la comme sunu dëkk la te dëkk bi li tax sëriñ bi sanc ko yaakaar naa ñaan gu nangu gi am na bu dee ay daara yim ci ñaanoon suñ borom ñaata junni junni daara ñoo fi ne bu dee ay jumaa it yaakaar naa la mu waxoon ni ñaan naa suñ borom mbooloo moo xam dañuy sax di dundal waxtu yu juróom yi wax koñ boo fi dem fekk fa jumaa fekk fa jàkk kon ñaan googu nangu na li ci des nag muy saaxiir si ñun ñoo ko war a matale kenn wërta gis sa bopp kenn ku ne ci ñun xam na sa bopp dugal sa néeg nga tëju ne man maay kan man maay jullit bi ma ndax maay taalib bi sëñ bi mu bëgg ndax man maa ko defal lii ndax man maa ko defal lii xalaat nga xisaab sa bopp kooku ku ne war na ko ma defal sa bopp buñ jógee nag njaboot gi nag ñu jàngal leen waaye bu ñu leen jàngalee ba noppi nag ñu yar leen ndax jamono jii dañ bu njëkk dafa amoon li ñuy wax jàng ak tarbiya maanaam nga yóbbu yóbbu sa doom ca daara ja ñu jàngal ko ba pare yar ko loolu sëriñ bi jaar na ci mag ñi fi bari jaar na waaye xam nga dafa mel ni jamono jii xaw naa jafe léegi ndax jot gi ndax xale bi da nga koy wax ne jàngi alxuraan mu mokk bu ñu bisee nekk ci kër gi gaawoo màgg loolu sut la yow miy waajuram boo boo ko jaaraliwul nag ci coono bi nga jaaroon wala coono bi yoon wi baaxoo li koy këf mooy téléphone yi li koy këf mooy média bi li koy këf mooy ñu bokkalul pas-pas te ñun mbokk yi ñi ñu bokkal pas-pas bariwul ndax ñun dañoo am loo xam ne ñoo ko gàll suñu bopp ab julit lañu di ay julit lañu doon yàlla sàkkoon waaye ci biir julli gi nag dañoo gis koo xam ni dañ ñu ko yaa ñu doy àddina ak àllaaxira muy almurid mu murit googu nag volontaire la ku ne yaa ko defal sa bopp yaa xool kala doy nga dem ne ko jébbalu naa ba ngay jébbalu ci moom loo ko wax loo ma digal ma def loo ma tere donc bàyyi ñenn ñi sax di dooma séen ci loo may tere kon bu ñu demee nag ba sëñ bi coot coono woo saa buy discours ngeen dégg ko wax ci dëkk bi di wax ci taalibe yi te moom la ko war mu ne ci mënoon a wutal boppam sëriñ Muntaxa ku ne xam ne mënoon naa fàggul boppam man de mën naa seede ci li ma xam ci lu mu néew ci luy jaar ci loo xam ni dafa koy jaarale ci lépp loo xam ni lu nit war a wut la du ko fàggul boppam dëkk bi rek wala njabootu sëñ tubaa gi mosuma dégg koo xam ni dey wala xaw ma ko yëguma koo xam ni dox na ci yitte joo xam ni ba mu koy dox sëñ mu taxaa tax déedéet lu muy dox ci lu mën di doon ak foo ko séen moo xam ci réew mi moo xam bitim réew tubaa ko tax a jóg taalibé yi sëñ yee ko tax a jóg su ko defee nag ñu góor góorgóorlu bu baax te nangoo liggéey ndaw ñi ñu daw dem liggéeyi nit ki da ngay dem liggéeyi soo bëggee boo boo bëggee maanaam li ñuy wax bul xeeb benn liggéey foo seen ab liggéey te mu baax te lislaam gërëm ko nga daw ca ndax Tuubaa li fi amoon dafa mel ni bu njëkk ku ne xam na ni euh, suñu mbokk yi nekkoon bitim réew alhamdulilah dañoo jàmbaare woon macha allah yàlla may leen waaye àdduna moo mën a soppeeku ñu nekk bitim réew yanu ak kër boo xoolee dëkk bi ni mu ni mu bindoo environ dëkk bi kër goo fi wàññi benn da nga naan ab mooda moodal wala ga ca sës te ñoom ñëpp gis ngeen ni jamono mel ñoo daan yor seeni soxna yor seeni rakk yor ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu nag dafa munta wëy li munta wëy nag teel koo dakkal fàggu sunu suba sunu suba mooy lan ñu xam ni kat ay ndaw lañ te dañoo war a daw liggéey ñu dem liggéey ku lay dimbali ak ku la dimbaliwul boo dee liggéey du la jariñ dara bu la bu la saxurlaa bu la jëri bu la bu la jëriñul te nangoo liggéey amul lum lay lum lay wàññi waaye soo nangoo liggéey nangoo liggéey góor góorgóorlu ci xëy ca bu la nit même dimbaliwul la ngay liggéey dana la dana dana dana la jariñ kon nañ ci góor góorgóorlu bu baax di lancer appel boo xam ne maa ngi koy lancer ci sama mbokk yi nga xam ni xaw nañ tolloo dara ja ci gis-gis ci dëkk bi. da ngay gis léegi macha allah li yàlla dogal mooy. ndaw dafa xaw a dañu yàlla nañ gën a barkeel dañoo xaw a gaaw a màgg léegi te xaw a sakkan te bu ndaw ñu demee buy ëpp ay mag te teewuñu leen a préparé ci jafe-jafe la ñuy jëm rek sànnante saagante xeex ak li nga xam ne dafa xew Tuubaa nga xam ni léegi ñëpp war nañ ci amum tiit kenn ku ne mooy li ma wax delluwaat xamal ndaw bi ni ko doomu aadama nga ab jaamu bi yàlla nga taalibi Sëñ Tuubaa nga waaye dem wut tul ñu ne ah nga takk ko wala nga naan ko dem fa ñuy màggale di daanu ba jam sa bopp faatu loolu it nit ñi war nañ cee delloo wat si wat nit ñi xam ni kat loolu kay wote màggal ga loolu tax koo jóg màggal ñaan la ak cant waaye dem fa nag ba jàmm nag ngir rek da tul wax dëgg yàlla loolu moom kenn xamul lu mu nuru kon nag loolu yëpp ndaw ñi ngeen bàyyi ki seen xel te ngeen góor góorgóorlu wan ma sa àddina wan ma sa réew nan lay mel ëllëg boo ma bëggee wan wan ma sa ndaw yi tey rek kon góor ndaw ñi góorgóoru leen loolu ma doon wax ci dagg ñi nga xam ni yàlla may na leen am koom te ñu ne ci dëkk bi ñu xam ni commerce rek baax na waaye ñëpp mënu ñoo nekk ci commerce nañu fi fexe wut lu ñuy wax ay usine dimbali ndaw ñi ñu dem liggéeyi am nañu ko man bu ñu amoon nag lu leen occupé ñu war a dem liggéeyi xëy 8 heures di wàcc 18 heures boo ñëwee dinga nga tal leneen lu dul yàq wala ngay tal leneen lu dul dugg te koo seen muy dem muy ndaw ak mag bëgg na lu ko jariñ kon ñi ngi lancé appel bu baax ku fexe nag ba koo man di doon ñu fexe ba sànk loola sa dund yàqalal sa adduna ak ci nu ñu la ko mën a yàqale réccu rek ci dege man baa anuuran bi du jaa fasa yandamu loolu la sëriñ bi ku jaay sa leer jëndee koog lëndëm danga nga réccu bul nangu kenn ku la jaayloo sa leer xamal ni doomu aadama nga xamal ni yàlla la bind xamal ni ndaw nga ba nga tolloo ci war a jàng jàngil ba nga tolloo ci war a am métier amal métier ba nga tolloo ci war a liggéey dem liggéey ñoo ngi jégglu ñëpp di jox nuyoo beeg cant gi sëriñ Afia mu joxal ñu kilifa diine yëpp di jégglu bu baax jubluñ ci lu an nasiha laabire rek ndax loolu may wax lépp jikko yooyu yooyu yëpp ci man mii la ëppee kon maa ngi jégglu bu baax di ñaan sëriñ Afia yàlla suñu borom yàggal ko fi ak mbooleem jullit ñi fajal ñu suñuy aajo